amee ba noppi ña ngay kaas ñoom waa Égypte nee na nañu fañ leen jox muy otel ba ñu dal dafa sori lool jam ñaajo Radisson ca biir ndakaaru lañ leen jox te Radisson nag dafa sori lool jam ñaajo ndax bu ñu xoolee soriwaay ba mi ngi toll ci trente kilomètres loolee ñoo ngi koy kaas ñoom waa Égypte équipe nationale bu Sénégal nag ma nga ca Radisson ba nekk ca jam ñaajo digganteem ak stade ab Abdoulaye Wade benn kilomètre képp la ñoom waa Égypte nag la ñuy kaas moo di soriwaay bi mu sori ndax seen dal ba sori lool ñii di waa Égypte nag bu ñuy football suba mayo yi lañ nam ma mayo yi ñu soyoon ca ale ba nag ruus la woon waaye kilot yi dafa weexoon maanaam tuboy yi dafa weexoon waaye mayo yi la ñuy sol mu ànd ak tuboy bu ñuul match bi nag suba la 18h lay commencé kon nag ñoo ngi ñaaxati sénégalais yépp ñu mànkoo àndandoo dem ca stade maître Abdoulaye Wade jàppale équipe nationale bu Sénégal ku ciy dem nag boo amee sa mayo sol ko boo amee drapo équipe nationale wala drapo Sénégal nga yóbbaale ko ànd yuuxoo jàppale ñoom Sadio Mané ndax bit ya ñëw waaye nag laser baax na lii di lasper nag moom waxuñu kenn yóbbu ko même xeer bokkul ci football laser moom gis nañu ko ci football waaye xeer moom bokkul ci football lasper bokkul ci football te ci fàttali mat su boobee FIFA dañ fay yebal ay ndaw buñ fa defee naka su dul noonu rek mën na indil jafe-jafe yu miti équipe nationale bu Sénégal nañu ñaan qualifié ci njekk ak teraanga Sénégal am ndam lu set wicc dóor ko dóor yu miti mën a dem ca Qatar. ñu jógee ci équipe nationale bu Sénégal ak Égypte dem ci doomu Sénégal bi ak France di Boubacar Camara bu ñu sukkandikoo ci le 10 sport moo di gone gii di Boubacar Camara waa Atlético de Madrid ñoo gën a jekku ngir jël ko moom nag ñii di waa Atlético de Madrid la ñu ko wax kat dafa neex a dégg nee nañu ko boo ñëwee fii dinañ la signéel defal la salaire bu baax te tamit da ngay nekk titulaire maanaam da ngay départ titulaire match bu ñu am su fekkee wér nga rek da ngay départ loolee tax na kat le 10 sport li mu xamle moo di Atlético moo gën a jekku ngir am ko gone gi nag bu saison bi jeexee contrat day jeex tàkk fële ca Marseille waa Tottenham bu ñu sukkandikoo ci se athlétique li xam xamle moo di ñii di waa Tottenham woo nañu George Mendes George Mendes nag agent la day jaay ay jour waaye la ko waa Tottenham xamal moo di Harry Kane su fekkee jógee na fii yow lañ bëgg nga wutal ñu attaquant bu ko fi wuutu kii di George Mendes nag ñaar lay bàyyi xel jamono ji muy Tammy Abraham nekk ca AS Roma bu José Mourinho ak kii di Darwin Núñez moom ma nga ca Benfica ñaari gone yi la George Mendes di bàyyi xel ngir su fekkee Harry dem rek ñaar ñooñu kenn ñoom dem ca Tottenham ñu jugee ci waa Sœur Atlétique ca waa Esport ñoom li ñu xamle moo di kii di Adama Traoré Barcelone noppiwul ngir téye ko li ko waral moo di kat waa Wolverhampton lañ cay laaj xaalis bari na te Barcelone la mu yaakaaroon ci gone gisu ko naam ma ngay doxal waaye efficaceul ndax Adama Traoré du dugal ay bit loole tax na ñii di waa Barcelone boo moytul bu saison bi jeexee dañ koy bàyyi mu dellu Wolverhampton waaye nag Tottenham mi nga xamante ci janvier bii ñu génn Antonio Conte bëggoon na waa Tottenham jënd ko loolee yembul ba léegi wuñu ko bu ko waa Barcelone bàyyee daal waa Tottenham ñoom ñoo ngi xerawlu ngir jënd ko ci waa Wolverhampton ñu jugee ci Adama Traoré jël doomu Pays-Bas bi di Botman moom nag défenseur la mu ngay futbal ca bu ñu sukkandikoo ci Nico Sira li mu xamle moo di gone gi daanaka dem na ca fee di AC Milan li ko waral moo di kat gone gi ak AC Milan jubóo nañu ci lépp fi mu desee kay mooy ci ñaari club yi muy Lille ak AC AC tegal nangu na ko nee nañu ko boo ñëwee dinañ le signer contrat ba deux mille vingt sept bu saison bi jeexee dinga nga am trois millions d'euros gone gi nangu na loolee waaye ni ko Sira li mu xamle moo di ñii di waa Lille la AC Milan jàpp moo di dinañu woyofal ba jubo am bu saison bi jeexee rek gone gi wuutali foofee ca Serie A ñu jugee ci Botman dem ca waa Real de Madrid bu ñu sukkandikoo ci l'équipe li mu xamle moo di xeex ba door na nag ci diggante Real Madrid Chelsea ak Paris ndax gone gii di Tchouaméni waa Real ñoo ci njëkkoon waaye ñaari club yooyee ñëw nañu dolleeku ca ngir jënd ko indi ko kon nag xeex bi door na ci ñetti club yooye ndax ci waa Tchouaméni mii kat milieu de terrain bu football am yaakaar ci moom la kon nag xeex ba door na. ñu jugee ci waa Real de Madrid dem ca waa Barcelone xibaar bii nag neex na muy kii di Ansu Fati bu ñu sukkandikoo ci Mundo Deportivo jamono jii may wax ak yéen kii di Ansu Fati docteur ya yor wàllu wér yaram ca Barcelone ñaa ngi ñoo ngi koy saytu ba xam suba dina mën a bokk ca entraînement collectif ba maanaam bu groupe ba yépp di entraîné mu bokk ca entraînement boobee ngir waajal match bi war a ñëw kon nag Ansu Fati ma nga yëg tan bu baax a baax bu ñëwee nag dina dolli dooley Barça ndax Barça soxla na ko jamono ji kaa ñi yëf foofu la buuree ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ba ci kanam ak beneen vidéo incha allah